li ci gën a fës li mu sénégalais yi faatu ca bu nekk ca euh, Mauritanie ci mbëkk mi yokku na fukk ak ñett lanu woon léegi fukk ak juróom lanu ñoom ñëpp lañu euh, ñoom ñëpp nag foofu lañu leen suul Macky Sall njiitu réew mi àdduna ci sànq jaare ko ci Twitter méttit li li xew ba noppi ne émigration clandestine war nañu def lépp ba mu jóge fi juróom-benni département fii ci Sénégal xiif mu ngi leen di yoot conseil national bi saytu wàllu sécurité alimentaire moo ko xamle waaye yokk nañ ci ne am na ndimbal boo nga xamante ni jot nañu ko ngir wàllu askan woowa ñoo bañ ñoo lank di kuréel gi juddu eh, ngir bañ yokk courant bi sànq la ñu doon amalab ndaje taskatu xibaar yi ñu ne nag njiitu réew mi Alaaji Macky Sall la ñuy waxal bàyyi Marius Sagna ak ay ñooñam nu mu gën a gaawee artu ko nekkoon a xam lu leen dal ci kasso bi rek mom euh, mom moy responsable mom aladi Macky Sall fukki ñetti ci décembre ñoo bañ ñoo lank dana manifester reportage bu bes bi ñu Ascanvine ko coono gi askan wi nekké ci jamono ji courant bu yokk ndox mu manké li lépp euh, ñukoy euh, dundu ba tax ñu né basta dafa doy amna ñu né sax émergence bi ñuy wax dal gisaguñu ci dara xibaari ti rew Georges Déthié Diop ngi lay nuyu. ngi lay fay dem ba Burkina Faso foofee terrorisme ba ak euh, lëm fa jur ña ñàkk seen i bakkan ca wàll woowee dañoo yokk ci atub 2018 306 la ñu woon ci dañoo yokk ci atub 2019 306 la ñu woon ci atub 2018 2019 nag lim bi toll ci junni ak juróom ñetti euh, téeméer ca Gabon moom euh, foofe Ali euh, Ali Bongo tab na doomam ca présidence de la République jamono ji Noureddine Bongo Valentin moo yor lépp lu jëm ci wàllu mbiru présidentiel ya foofu ca Gabongo. yaatal gi ci kanam Georges Déthié Diop Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi laa nuyu. maa ngi laa fay Barthélémy ay waloo andi. wàllu handball danañu ko dal di waxtaanee dellu ci ndam bi nga xamante ni suñu gaynde yu jigéen ñi dal nañ ko am ca coupe du monde ba ñuy amal le ca Japon. gulet nak Sénégal dal na am ndam ci eh, coupe du monde ndax bii moo di première participation tey ji nak dañoo dal di daan ñi nga xamante ni ñoo doon Kazakhstan 30 euh, à 10 bu loolu weesoo itam wàllu football danañ ko dal di waxtaanee ak ndorteelu ëllëg lii di Ligue 1 beeg Ligue 2 bi ak doyen Abdoulaye Diop indi euh, bi nga xam te daal moom la ñu a taxawee niki ren euh, euh, gi ci kanam Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay gërëm li ci yéen i kaay daañu ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM tey émigration clandestine maanaam mbëkk mi la nuyu waxtaanee prétexte bi di gaal gi suux barki démb fële ca waaxu am ay sénégalais yu ci ñàkk seen bakkan Aliou Ba moo faree ci machine yi ñuy rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média li sénégalais yi faatu ca bu ca Mauritanie gannaaw ba gaal gañu ñu duggoon euh, euh, suuxee euh, lim ba nag yokk na fukk ak ñetti lañu woon waaye yokk nañ ca yeneen yeneen ñaar mu di fukk ak juróom ñoom ñëpp nag foofu lañ leen suul fa nga xamante ni fa lañu ñu fa leen fekk ki nga xamante ni nag moo di consul bu Sénégal foofule ca bu ne mu ngi topp mbir mi bu baax a baax ñu ànd ceeg Mohamed Diop. doomi Sénégal yi ñàkk seen bakkan ci gaal gi suux Mauritanie. mujj nañ toll ci fukk ak juróom ñoom nag ak ñeneen ñi ñàkk seen bakkan ci mbir mi dañ leen a mujj suul la noadibu ñu déglu ci alaji kebe mi jiite sénégalais yi ne noadibu ndax suñ ko xoolee nombre bi te fii aussi amul euh, place boo xam ne dañ mën a garder tous ces corps là autorité yi en collaboration avec la hiérarchie le ministère de l' l'intérieur tout ça dañ souhaité léegi dafa leen fi benn armel dafa leen fi benn armel boo xam ne ñoom dañoo fa nekk démb nag ci alxemes ji

benn bu dëkk Suuruur Suuruur benn dëkk beneen dëkk daa salaami séeréer la si arrondissement bi Toubacouta mais benn bu dëkk Tënduk mu des ñuy xalaat nu ñuy fexe ba sénégalais yooyu nag génn bakkan ci accident bi mën a ñibbi ci lu gaaw Mouhamed Diop Noxat RFM Mohamed eh, eh, Diop eh, dañuy des ba tey ak sénégalais yooyu ñàkk seen bakkan ci waaxu Mauritanie yi ca Kaarang nag jamono ji dafa mel ni ñu ngi ci dëj am na juróom ci doomu Kaarang yu nga xamante ni bokk nañ ci musiba boobu li ñàkk seen bakkan ñoom juróom yooyu fekk baax ca Kaarang Aminata Goudiaby suñu ndaw la ca Fatick Fatick waxtaan na ceeg meeru dëkk ba. Diogine Gomis moom mooy meeru Kaarang moom nag ñu ko jotee ci téléphone nee na tey jii askanu Kaarang dañu yeewoo naqar ak njàqare ndaxte juróomi nit ñoo xam ni Kaarang la ñu bàyyeekoo ñoom nag dañoo ñàkk seen bakkan ci gaal gi nga xam ni moom moo këpp àllarba ji weesu ca Mauritanie ci ñooña nga xam ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan te bàyyeeku ci Kaarang fas yéene woon dem Espagne nee nañu bokk na ci ñetti élève benn ouvrier ak itam benn cambiste boo xam ni amoon na lu tollook ñeent fukki at moom nag bàyyi na ginnaaw ñaari soxna ak itam ay doom yoo xam ne ay xale yu ndaw lañu ay ndaw yoo xam ci village bi di Bassar nekkee ci commune bu Bassoul lañu ñu ko itam ñi ngi woon ci biir gaal googu ñeent lañu woon ñu nag ñaar ñi ñàkk nañ seen bakkan ñaar ñeneen ñi ay rescapé lañu ñoom ñëpp nag buñ sukkandikoo ci suñu sox suñu ne ay pêcheur lañu ñu woon yeneen i jeunes yoo xam ni ci village yi nekkee foofee ci Bassoul lañu ñu ko woon bokkoon nañ ci voyage boobu waaye nag seen ay way jur nee ñu fi amaguñu benn information ci ñoom ñuy wax ne rek Île du Saloum na ci gox yi nga xam ni ñoom la immigration clandestine gën a laal te élèves yeeg nappkat yëpp ñoom ñoo ciy faral di bokk Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby njiitu réew mi El Hadj Macky Sall nag àdduna ci jéye joojule ci compte Twitter am la ko jaarale daal di euh, yónnee njaalam ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seen ñooñ ci suuxub bateau boobule daal di mettut li li xew moom El Hadj Macky Sall ne immigration clandestine gi état yi war nañ def seen kéem kattan ba mu jóge fi ministère gi ñu denk wàllu biti réew noonu it euh, naataangoom gi ñu ñu walu nap napp li baye ko ci géej gi boobaak léegi ñu ngi wuta a jokkook ñoom bu teyé sen téléphone sonné bu ñu baña jël bu boîte vocale menam secrétaire d'État bi ñu toftal ci ministère des affaires étrangères la jot euh, téléphone addu ak mom euh, mu ne nak euh, mu ngi jokkoo bu baax ak consul honoraire bu Sénégal ba nek ci Nouadhibou waye nak Moïse Sarr nee na xaar ba jot rapport bu mujj bi ngir mëna Sénégal dëggal ni ay sénégalais bokk nañu ci gal ci Euh, bu nekk euh, Nouakchott euh, doon naa leen ko junj ci boppu xibaar yi juróom benn département fii ci Sénégal xiif mu ngi leen di yoot conseil national bu saytu walu sécurité alimentaire mom ko xamle waaye nag na ci ne am na ndimbal buñu jot ngir walu askan woowu euh, si juroom ben département yoy bokk na ci Salimata Salimata Raneru Podor Matam kungel ak Tiwawon. ñu tewlu ci euh, Jean Pierre Senghor mooy secrétaire exécutif euh, bu conseil national bi ñu walu sécurité alimentaire ay kaddom ci micro Mohamed Ali Mouba. pour que ñu mën am li ñuy faaw ñu développer ay stratégie moy lan yow su fekkente ne yow li ngay lekk doyul faw nga jaay béy wala jaay euh, ginaar jaay la ne loolu mooy stratégie ak yeneen i stratégie kon jëluñu six départements yooyu rek dañu xool de 42 départements yi yëpp ñan ñoo ci nekk ñu am jafe-jafe loolu buñ ko xaymaa mu ngi toll ci 359 000 ak li ci topp ñooñu lañ ne faw ñu jàppale leen léegi léegi léegi puisque liggéey bi du ñun rek ñoo koy def dafa am ñuñ ko bokkal ñoo xamante ne ci état bi la bokk

ñu mun a jàppale ñooñu pour que ñu bañ a dugg ci jafe-jafe bu gën a mel. si si si ñooy ñan ñooy salemata salemata foofu taw bi nag taw na wax dëgg yàlla. foofu Podor nekk na département bi nga xamante ne moom rek moo am excédent. ci mais lu tax ñuy am jafe-jafe. li ci bëri mooy li ñu tuddee moyen d'existence yi moo xaw a néew. xale yi nekkuñu ci agriculture bi dañ ko bàyyi di dem di def ay yeneen. Podor mooy euh, euh, ñeenti département yi nekk nord. Mm-hmm. ak Tivaouane. Tiwaawan tamit gis nañ ne euh, taw bi foofu taxu ko demee noonu. ñu doon béy amuñu lu doy. mooy département yi nga xam ne ñu ngi sous pression juróom-benn. kaddu yi Jean Pierre Senghor di secrétaire exécutif conseil national bi ñu jagleel wàllum sécurité alimentaire ñoo bañ. ñoo lank di kuréel gi nga xamante ni moo juddu ngir bañ rek yokkute gi ñu namm ci courant bi euh, sànq la doon amal ab ndajeg taskatu euh, xibaar yi ne nag njiitu réew mi la waxal na di Marius Sanya ak ay ñoñam wala bok lu leen dal ci kaso bi na xam ne moom Macky Sall moom mooy responsable ñoom sax nas nañu ab manifester fukki fan ak ñett ci weeru décembre gi lay doon ñu teewlu ci Mignane Diouf ci forum social ay kàddoom ci micro Papa Balla Gueye pour ñun arrêté Ousmane manta am maxama bu ñëw yéeg ci kaw constitution ci marché boobu nag ñu jàpp sunuy mbokk di leen paaj baajloo ñuy dem dikk dikk ci diggante commissariat central ak cave pour ñu mun a xëy na ku ci nekk caalit gi nag mu ngi liberté 6 ci anam yoo xamante ni nee nañu ñu ñu fay dugal yëpp dañ leen di jàpp ne ay terroriste lañu xanaa nag terroriste ju dem di marché yorul sax suuf yorul bant yorul liif yorul fetel mais yooyu yëpp xam nañ ne dañ koy def rek pour xëy yegg ci sunu xel ak sunu xol ba ñu daanu xëy na li nga xamante ni la ñu duñ ci bàyyi dara nag moo ñu ne ndegam constitution am nañu sañ-sañ dox doxub ñaxtu nañu bàyyi ñu jàpp tous juste parce que dañoo doon dox doxub ñaxtu ñi ñu war a ñu ngi ci dëkk bi di te xam nañ ko loolu nag bu leeree ñu xamal itam ni fan yi ñu jëm ñun collectif bi mu ngi gën di yaatu ndax syndicat yi nga xamante ni itam bu dund gu seeree ñoom ñoo koy njëkk a yëg ndax syndicaliste boo gis nekk kuy liggéey daanaka mu ngi dundal lu mot fukki nit ak lu teg kon buñ ko yokkalee ndox ma yokk courant ba yokk école ba ak paj gi ñoom ñooy gën a sonn ndax ñoom ñooy dundal njaboot. kaddu yi mi ñaan Diouf bokk si forum social ci manifestation boobu nga xamante ni ñoo bañ ñoo lank daanu ko amal fukki fan ak ñett ci weeru décembre gii di sàkku ci Macky Sall ngir mu bàyyi nu mu gën a gaawee Guy Marius Sagna ak ay ñooñam ci mbirum Guy Marius la ñuy des ba léegi ak kaddu yi Momar Ndaw moo nekkoon gën ak RFM matin ni ki tey jii moom njiital Ascosen bi nee na. Guy Marius li mu def mu nees nañu ko méngale ab provocation ndax bàyyi fépp jublu ca palais ba ne fa ngay euh, manifester dafa mel ni provocation la bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Momar Ndaw euh, moom nee na nag munoon na choisir beneen ab bërëb foo nga xamante ne fa lay dem di manifester fu wuuteeg palais ba ci geneen wàll àdduna ci yokkute courant gi nee na lu xel mun a nangu la Senelec am na jafe-jafe li nga xam ne moom bu toggee courant jaay ko mi ngi toll ci 384 milliards mais état banque amel 265 milliards te at mi pour mu dox il faut que ñu dugal 102 milliards daanaka ñu manque tuuti maanaam daal booy xool li nga xam ne bu liggéeyee moom lay jaay daanaka lépp kenn fay ko waaw ala soxla na ko kon mu nekk ne presque un milliard par jour yoo xam ne il faut ñu dugal ko pour Senelec normal ah léegi ñaari yëf rek moo am soit ñu ne nanguwuñ kenn bu boobaa su état bi yokkulee xaalis bi ñu ci war a dugal matul mais dañuy defaat li ñu amoon rek la ñu mooy li ñu daloon 2009 ba 2012 mooy courant ñàkk a ñàkk a ñàkk ñi di wàcc ci mbedd naan na courant moo tax ñu nangu ñu delloo prix yi fa mu nekkoon même fu ñu koy fay delloo sax du yegg foofu mais en même temps aussi ñu épargne ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy new ji doole yi moo tax facture yi nga xam ne facture yu ndaw yi la ñi nga xam ne seen facture facture yu ndaw la nga ñooñu kenn du leen yokkal dara. waaw léegi noo gisee ñu jàpp euh, ñoom di Mari Sagna ak euh, ñi waaw xam nga ñun manifester jàpp nañ ne nit war naa mën a manifester ndax loolu lu yoon maye la. ci ba ci constitution bi. waaye dem ay pale naan maa ngi taxaw ci gris yi di kii yooyu loolu provocation. parce que foofu dafa war a nekk foo xam ne fu fu wóor la yoon bu wóor la yoon bu am sécurité la. ndax actuellement dañ nekk ci kuuru kaara goo xam ne dëkk yi ñu wër yëpp dañoo am jafe wu sécurité. kon lépp loo xam ne suñ ko defee mu fragiliser suñ sécurité waruñ ko def kon dem manifester feneen ñu naan autorisation ñu manifester su fekkee manifester nañ gis ne ay millions yi millions yi sénégalais yi génn nañ ànd ak ñom ñu xamné kon ñom seen manifestation kii na suñ gisee ne ñoom kenn kese la itam ñoo xam ñom ñoom ñoom kenn kese la mais daal pour ñun liñ gis moy manifester d'accord waaye dem ay palais loolu provocation mo ngok mu doonoon cadeau yi Momar Ndaw Georges Dethie Diop moo ko taataan tey jii ma fatali len ko momo moo nekkoon kanu RFM euh, matin coono gi askan wi nekkee courant bu yokk ndox muy manqué lii lépp nag ñu koy dund ba tax ñu bari ci ñoom ne basta dafa doy am na sax ñu ne émergence gi ñuy ngawti ngawte fan yi daal gisuñu ci dara umu kalsum li ci place publique yi ci oto yi ak ci rajo yeeg télé yi lenn rek la ñuy waxtaanee moo di chéraay courant bi ak ñàkkum ndox mi la réew mi fan yi ñu toll askan wi jot a dajal rek ngi wax ni ñoo ngi dund jafe-jafe yi. courant ndox location bi cher ba dee weer ak weer dund bi moom kenn waxaale ko moom ñu ngi bëgg a dee te yàlla ñëw. metti na courant bi seer na ndox mi seer na commerce bi doxul am lépp taxaw na. Oumar Cissé toll ci ñeent fukki at ñu fekk ko muy waxtaan ak ay xaritam profité na ci suñu teewaay ngir wax ci factures yu yi weer wii jàpp nañ ni. facture am dana yokk. dafa yokk lépp a yokk facture ndox yeeg courant yeeg dafa yokk te loolu du yoon Sénégal war na dépassé foofu quoi loolu laa wax dama ne Sénégalu 2004 2019 ak Sénégalu 92 waratu waratu nekk ñu a falaatoon keneen tamit dañuy gën sonn rek man gëmatuma ne Sénégal dina mës a baax quoi ma loolu gëmatuma ko quoi franchement. beneen i jafe-jafe bu askan wi di dund muy ñàkkum ndox bi métti bi ak gréwu SDE bi maire Kadiatou Diallo mu ñuy xamal ni ñetti fan a ñetti fan yooyu yëpp rootuñ metti na torop billaahi fan yii yëpp ñu ngi jaabante di uti ndox nañu jàppale rek ngir yàlla xam nga ndox bu rek du baax dimbali lañu rek ngir yàlla rek ñu may ñu ndox rek tuuti. weeru décembre bi yemoo ko weeru fête fin d'année yi période bu bëri jafe-jafe buñ sukkandikoo ci askan wi seeraay dund gi facture yi tàmbalee yokk ak ndox mu metti bi ak yile jafe-jafe yu tar askan wi di wax ne rek laata fetu newel yi xëy na dundin gi soppeeku. Umu Kalsum jóge Dakar riir wutali Kaolack foofu nag chantier ya ca yañu soobu woon jëmee ci wàllum euh, Promoville bi chantier ya décembre 2018 ba léegi dafa taxaw mu dib at yoo xamante ni daal dara doxatul ca chantier la ko waral nag mbirum koppar bokk na ci euh, liggéey ba nag daanaka Banque africaine de développement euh, moom moo ko financé woon fi mu ne nii la des ngir chantier yegg sax gaa bareetul waaye nag dafa tagga tembe préfet bi bu kawlak demoon na seeti leen Ibrahima Diame Dans lu mat at a ngi chantier phase promoville Kaolack bi nguuru Sénégal financé dañoo taxawandi ndax ñàkkum par 45 pour cent exécuté Rachel Coliboukal, moom mooy secrétaire général ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale. dëgg la liggéey boobu dafa arrêté parce que dafa amoon ay yenn contraintes yi nga xamante surtout d'ordre budgétaire moo taxoon ñu arrêté ko. waaye dina commencé waat. ci début d' année 2020 bi ndaxte ci loi de finance rectificative yi bi nga xamantene mom lañ voté bi passé état du Sénégal joxé na ay ressources yu suffisantes ba nga xamantene Promoville dina mëna a reprendre travaux yi. waaye nak ci geneen wetu ga yeneen chantier yi nga xamanteni wa waa BAD di Banque africaine de développement ñoo ci duggal seeni loxo te délégation Promoville doon ko visiter chantier yoyu la liggéey baa ngi avancé bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci njiitu délégation bi dé fi mu toll ni éclairage public bi ak aménagement urbain yi moom moo ci des. tabax ay ouvrage nak mbir la waye sàmm leen mbir ngir la à peine chantier yi jeexagul askan wi di ci def yu nga xamanteni rafetul ci gis-gis motax premier adjoint au maire bu Kaolack di docteur Thierno Dieye di koy ñaawlu bu baax baax. li ñuy visité tay dem nañ ci loo xam ne jëlaguñ ko. ñu fekk ñu ji tour ay fosse di ci tuur ndoxum saabu. yàq loo xam ne jotagoo loolu nañ ci téye waxtaan ceeg suñu population yi. commune bu Kaolack nag war na am lu mu néew néew fukk ak ñaari kilomètres yoon yu nga xamante ni daañu ko tabax ci biir dëkk bi ci biir projet Promoville bi dimbali lu bokkul ak éclairage beeg assainissement bi mu war a àndal financement bi lépp nag boo xayma dem na ci juróom-ñetti milliards ak téeméeri millions ci franc CFA Ibrahima kaw lak rajo Futur Média. Ibrahima Diame ñu dem ca Touba Mbacké euh, ngir rek xeex ñàkkum kaaraange gi foofu la ca dëkk bu tedd ba. am na junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaari lampadaire yoo xamante ni bëgg nañu leen installé foofu la ca Touba. Euh, association bi ñu duppee Touba ca kanam dugal na loxom si poos génne lu tollu ci juróom fukki million ngir jappalé ko euh, mairie ba ci euh, projet bobule ñu ci ceeg Marema Diop. ñaari junni lampadaire yu manké ñeent ñu ko tasaare ci Touba association Touba ca kanam def lu ni mel ñu tàmbali ko sax ngir xéx ñakum karangé fi ci Touba Abdoul Fattah Gueye di président bu association Touba ca kanam. lu jëm nak poto lampe yi dañu gis né mom jafé jafé bu reuy la xam ne nemmiku nañ ko ci dëkk bi ci ak lëndamaay gu met ci biir loolu nag ci la commandé luy tolloog 1960 lamp ndax gis nañ ne insécurité bi bari na trop ci dëkk bi te bokk na ci li ko mën a saafara mooy éclairage bu doy sécuriser dëkk bi yokk kaaraange gi fexe ba dëkk bi leer ba nga xam ne defkatu ñaawteef du mën a làqatu fenn di def li mu bëgg a ay lampadaire automatique yoo xam ne dafa méngoo ak technologie fi mu toll bu ñu sukkandikee ci ñoom koppar ga sax ñu ngi ko xayma ci juróom fukki millions nga. bu ñëwee ci benn ligne boo xam ne lañ fa fekk ci ay lamp yuy tàkk bariwul dañuy démonter yooyu yóbbu ko ci fu amagut ay lamp alignement boobu ñu def ko lamp yii ndax boo ko boo leen boolee ci benn euh, ligne da ngay am jafe-jafe technique ci bii di doxee horloge bee di doxee capteur liggéeyu lamp yi nag tay ji lay lay fas yéene tàmbali daf di bu ñu wax ne sax du dem ci santaan yi ah waaye day commencé ci biir dëkk bi fi ko gën a soxla yaatu nag yaatu ba ba fu mu mën a yem bu ëllëgee ñu yokkaat ci ndax étape par étape ku globalu lamp yi 50 la moom lañ ko jënd en espèce bu ma nee da koy dépassé. association bi dafa lëngoo ak mairie bi lépp nag ngir wàllum sécurité fii ci Touba Marema Diop fii ci Touba RFM. RFM mooy rajo bi soxla. ñaar fukki simili moo bootu ci benn waxtu xuus ci xibaar yi wax ci wàllum wér gu yaram ak ñi nga xamante ni ay physicien médical la ñu leen di woowee eh, ñoom nag eh, liggéey bu am solo lañuy liggéey ci wàllum pàcc ndaxte ñoom ñooy gérer li nga xamante ni moo jëm ci wàllum radiothérapie ak yeneen yu ko demee ci senegal ñett dong lañu bac plus 10 la am waaye dal nañu liggéeye eh, baaxul dara. ñu ci bëri ci ñoom dañoo bëgg wala boog ñoom ñetti ñooñ dañoo bëgg ñu jox leen gëdd gi war jox leen statut bi waar ci ñoom ndax te ne ni seen salaire daal weesuwul trois cent mille boo ko compté euh, te ñu gis ne loole méngowul ak la nuy liggéey ñu ànd ci kaw mbay métier mi di physicien médical don lo xamantene xamante ne mënul ñàkk eh, ci bép appareil radiothérapie bu ñuy fajee tamuy dox normalement ndax kookee ci ndoxteel la ba fa faj ma jéxé loxoom mënu ci génn li ñuy tuddee ay rayon X ci lay liggéey ba nopi karangé malade bi ak ñafay fay liggéey ci ay wagam la aju Sénégal nak amna na ci ñett ñom ñëpp di ay jigéen kenn ka nekk ci hôpital Dantec ñaar ña ca dalal jamm bu géejawaay bu sax sen taxaway kenn mënu ko remplacer ci unité activité radiothérapie yi ca bërëb ya ñuy fajee tey am nañu jafe-jafe ci seen wàllum liggéey ndax li ñu naan statut di taxawaay moom lañu ñu manqué ba tax payoor gi ñu waroon a am mu méngook ak at yi ñu jàng di bàkk ñu toftal ci fukki at payoor googu amuñu ko lu yées juróom-benn fukki junni la ñu leen di fay te boo demee ci dëkk yu mel ni France Maroc wala Mauritanie ñi nga xamante ne ñoo jàng euh, physicien médical xaalis bu bari lañ leen di fay ndax seen liggéey moo ko laaj teg situation bi fii ci senegaal ba tax autorités yi ñoom seen bopp ñu war cee wax lijjanti kaawu ñii di physiciens yi di liggéeyee ci unité radiothérapie yi balay làmbay di ñaaw soo moyul yeneen réew yu leen soxlo ñoo nar a ñëw fii ne leen coppet jox leen li ñu yellool ànd ak ñoom dam te ñi nga xamante ne ñett lañu dong ñoom ñëpp di ay jigéen seen xam-xam màcc ci wàllum eh, physique médicale ñu ne lu ñu mënti am toog seen réew moo leen ko gënal jariñ seen askan RFM bitim réew. Euh, bitim réew Georges Déthié Diop euh, gannaaw ba ñu la nuyoowaatee ñu wax euh, ci xeex mi ñuy xeex. walum euh, terrorisme ak conséquences yi mu am fële ca Burkina Faso. BBC xamal ñu ne ñi ñàkk seen bakkan ci mbir moomee dafa yokk ñu mën koo sax ful euh, juróom benn yoon ci ab at ndax euh, ñetti téeméer ak juróom benn la lim bi nekkoon ci atub 2018 atub 2019 nag diggante janvier ak juin ñu jàpp ne ju nekk juróom ñetti téeméer nit ñoo ca ñàkk seen i bakkan ab seede sax xam le ni ca BBC ni juróom ñaari nit ci njaboot gi mu bokk bokk ay euh, takki der ñoo ko rey ndax euh, ci xeet gi nga xamante ne euh, ca la bokk. ca république démocratique bu Congo moom armée ba nee na gis na néewub casque bleu ba ñu fa reyoon

ñu des ba tey ca république démocratique euh, du Congo ak comité laïque bi nga xamante ni euh, dem euh, ba léegi daal la ñu soobu ci sitting boo xamante ni dañ koy wéyal ca buntu palais de justice bu Kinshasa. Mm, sitting bi nga xamante ne ñetti fan lay doon guddi ak bëccëg ngir ñi nga xamante ne ñoo di juge juge constitutionnel yi seen loxo dugg ci ay dossiers électoraux ñoom ñu tekki seen i ndombal tànk ñoom ñoo ñee bokk ci CLC ñoom itam lu ñu bëgg moo di ñu delloo réewum Congo fukki million ak juróom ci dollars yi nga xamante ne dafa may ci keesu. doxalug euh, nguur gi bëgg itam euh, ñaawte fi nga xamante ne ñu ngi amee ca région bu Béni jeex takk Awa mbay palais de justice ca sa foofee la manifestant ya joxante rendez-vous ci ñetti fan yi démb lañu ko door comité laïque di fa amal euh, toogaanum ñaxtu ngir di mettit lu li nga xamante ne moom la nimmiku ca réew ma te neexu ko bokk na ca cour constitutionnelle ba na muy doxee li CLC bëgg mooy juge ya tekki seen nombal tànk ndax daf leen di jiiñ ne dañu leen a ger ci waxtu woo xamante ne élection ya dafa bari coow te leerul woon na lay catholique yi ñoom itam bëgg nag ay tontu yu leer jëm ci résultat enquête bi nga xamante ne moo jëm ci fukk milliards yeeg juróom ci xaalisu dollar ñu njortu ne dañu ko randal ca compte trésor ba CLC yokku ci ne dafa bëgg lépp luy ñaawteef rawatina faat ya ñuy faat ña nekk ca diwaanu Béni mu dakk ba noppi ku si sa loxo taq ñu teg la ay daan Awa dem nak euh, Batlimi ca Gabon Fofé Ali Bongo tabna ab domam ca présidence de la République euh, Noureydine euh, Bongo Valentin lay wuyo jamono ji moy di coordinateur général des affaires présidentielles ñom nak mom nak démb lañ ko tab ca conseil des ministres mu fas jappelé jàppale njiitu réew Gabon ni ñuy doxalé lepp lu jëm ci mbirum état bi waye itam def lépp ba dogal yi nga xamante ne njiitu ma jël nako ñu samonté samonteeg mom tanef gi nga xamante nak Ali Bongo tànn na ko doomam mu ngi am jamono ji nga xamante ne ay kilifa yu bëri ci administration publique bu foofu ca euh, Gabon ñu ngi leen joxoñ baaraamu tuuma ni dañoo jël kopparu réew mi euh, ñoom ñooñu ñu leen di euh, topp ca yoon. jaajëf Georges Dethie Diop Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom. Cheikh wàllu handball la ñuy tàmbale. waaw ak euh, coupe du monde bi ñeel euh, jigéen ñi suñu gaynde yi nag euh, am nañu seen ndam lu njëkk ci tournoi bi le Sénégal daan na nekk ci suba waa Kazakhstan loolu nga bindam. waaw moom laa bindam sa mbind mi nag daa xaw a dëng trop. Ah, leer na de. am na fanweer ñoom ñu am fukk. waaw mu ngi noonu noonu la daal di mujjee si diggante ñaari équipe yooyu le gannaaw loole nag ki nga xamante ni moo di Frédéric Boujean di leen tàggat yëkkati na ay kàddu ñu déglu ko. C'est un match qui est très très important euh, tout le Sénégal euh, pour les joueuses, pour les dirigeants. ndam la bu am solo pour le Sénégal pour joueurs yi les les compétition ndax xam ngeen ne bu lu ni mel ñu koy dal def ci coupe du monde. 2019, donc il faut vraiment féliciter tous les gens qui nous ont accompagnés qui. Euh, kon boog ñu fédération de joueurs yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci mbir mi ndax xam ni yef ci yombul waye bo ñuy coupe du monde mom danaka da ngay jang pour une première fois waye gis nañu que équipe du Sénégal quand même am niveau ndax wane nañ ko ci gile tournoi. très sympa maintenant on veut aussi euh, très très bien finir la compétition il nous reste deux. léegi nag la ca des nag moo des nañu ñaari match ci match de classement dañ def suñu kéem kattan ngir fexe ni ci génne. kooku di Frédéric euh, Bouchon di sélectionneur bu équipe bu Sénégal. ñu wax euh, ci gardien bi nga xamante ni daanaka moom. rafetlu nañu lool prestation wa modi moo Dungu Camara mom nga moom lañ daldi jël mu don li nga xamanteni modi meilleur joueuse ci gile euh, tournoi bu loolu weesoo Barthélemy ñu daal di wax ci leneen di walu football ak championnat bu Sénégal Ligue 1 bi ak Ligue 2 bi niki weekend bi lañ ko fassiyé kon bokk ko door ëllëg samedi dana am ay jongante gu ci melni ni génération foot ak jaraaf ci deni Biram Ndaw ci bu 16h jotee Alassane Djigo bu Pikine 16h30 diggante Gorée lay dal doon ak Dakar Sacré-Cœur stade Amadou Barry bu Guédiawaye 16h30 ñaari tali dana fa tas ñi di wa Mbour Petite Côte la ci dess ci walu jongante niki dimanche ca Ziguinchor 16h30 Casa Sport ak Teungueth FC dañ daal di tase stade Alassane Djigo bu Pikine

15 h Kër Madior ak Port altiné la ñoo fas kon bokk jeexal li nga xam te ni moo di jongante yi ñeel première journée bu Ligue 2 bi ci sar Alassane Djigo bu Pikine 16h30 diggante Renaissance lay daal di doon ak GFC Guédiawaye Football Club et sar Amadou Barry bu Pikine 16h30 diggante Wakam ak euh, Demba Diop bu Mbour lay daal doon yëf nag comme ngay waaj a door yaakaar war na ci mën a am waaye foo mu am ay mbir yi nga xam te nañ koy joyanti rawatina ci lu jëm ci wàllum infrastructure yi loolu moo di kaddu Abdoulaye Diaw di chroniqueur sportif ci radio Futurs Médias tey jii suba mu ngi woon ci biir RFM matin ci micro ko Babacar Fall. li ñu gàllankoor euh, infrastructure terrain yi ñoo et comme terrain yi doyul te équipes yi ñu nous avons de 28 équipes parce que deuxième division bi à première vie. mu c'est la même chose les wàcc deuxième division dootul punition euh, ndokk yàlla ba nga xamee ni ren ñaari division yi dañuy door mu mel na que léegi dañu leen traité euh, à chance égale wala à valeur égal Légui donc di len souhaiter une bonne année de football mu nek lu am importance année de football bi pour Sénégal parce que dafa am légui benen palier bu ñu wara gravé équipe club bu Sénégal yi ci sous région bi mënatuñ ci génn ñu ngi ni di wax deuxième tour Ligue des champions en Afrique yi ñun ñuy door suñu championnat signal la bu fort bu mel nak légui ñun dañu demooyu lolu pour dellu fa nak foog ñu gëna liggéeyat au niveau des clubs kooku di doyen Abdoulaye Diaw ñu daldi wax championnat ci biti championnat bu France Ligue 1 bi jàppale ni 17e journée bi danañ ko daldi door niki tey yi ci ngone ñaari jongante bu ñëk 18h digante Lille ak Brest ñaareel ba 19h45 digante Nîmes ak Lyon la ci des ci jongante dañ ko daldi yeggali niki samedi Paris Saint-Germain mi fété ci place bu ñëk bi dana fekk Montpellier ci dëkkam ci bu 16h30 jotee di ëllëg waaye choc bi diggante Olympique de Marseille lay daal doon ak Girondins bu Bordeaux Marseille fété si euh, ñaareelu place bi Bordeaux fété si ñetteelu place bi match googu nak dimanche lañ ko daldi amal ci bu 20h jotee première ligue di championnat bu Angleterre 16e journée danañ ko daldi di door ni ëllëg di kon bokk samedi ñu mën see bàyyi xel euh, Liverpool bu Sadio Mané 15h diggam ak Bournemouth lay dal doon waaye lat 12h30 Everton dana tas ak ñi di waa Chelsea lii di derby bi nag euh, di derby ah, Manchester 12h euh, 12h30. waaw 12h30 ëllëg incha allah. ah ëllëg quoi. xam nga fu mu toll ni décalage horaire beeg yooyu tout ça. waaw ah, dama yaakaaroon 12h30 bu tey ngay wax. non non ëllëg laa wax di samedi 12h30 diggante Everton ak Chelsea ëllëg itam. Liverpool 15h digamak ak Borsmus lay daal choc bi 17h30 Manchester City ak Manchester United. modi di Manchester la ci des ci walu jogante nañ ko daal di dimanche japp altine ci Espagne tam dañ dal dor sen 16e journée niki ki 20h diggante Villarreal lay dal ak Atlético Madrid ka féetee ci bopp Real Madrid Andesek, seek ñi do FC Barcelone Real Madrid mom ëllëg ci bu midi joté dana tass ñi do Espagnol Barcelone 20h FC Barcelone diggam ak Mallorca lay dal ci Italie sen 15e euh, journée ba seen championnat danañu ko dal di door niki tay ji jii mën nañ ko jàppee match ku nar neex sax diggante Inter Milan fété ci place bu ñëk bi ak AS Roma 19h45 Juventus de Turin féetee si ñaareelu place bi mom ëllëg di samedi dana fekki Lazio bu Rome ci dëkkam ci bu 19h45 jotee Napoli bu du Koulibaly itam ëllëg lay fassé yéene kon bokk bu ci gilé jonganté 17h diggante mag ñi di wa Udinese championnat bu Allemagne lañ koy jéxalé ak ñi di wa Dortmund ñom ëllëg ci bu 14h30 jotee ci sen 14e journée sen digg ak Düsseldorf lay dal di doon Bayern Munich mom dana fekk Borussia Cheikh Amadou Sougla Ba ci dëkkam waaye yëf yi danañ ko daal door niki tey yi seen 14e journée 19h30 diggante Francfort lay daal doon ak ñi di waa RTBR la jërë ngeen jëf fukki doomi Sénégal ak ñett faatooti nañu ci géej gi ndax mbëkk mi di immigration clandestine ubbi l'observateur keroog àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci yoru novembre ca la genn gaalu loo co yaboon téeméeri nit ak juróom fukk déparé woon Gambie doon dem Espagne bi ñu demee ba ci digg géej gi ci la gaalu looco gi mbëkk wenn xeer xar tàmbalee sol ndox gaaña ca peelu bëgg a fay juróom fukk ak juróom-ñett ci ñoom faatu ci géej ji ci waaxi gànnaar yi ci juróom fukki doomi aadama ak juróom-ñett yooyee faatu fukki ak ñett ay sénégalais lañu am na nag juróom-ñett sa ci ñoom sénégalais yi yu ci rëcc mbooleem néew yi ñu fore ci géejug Mauritanie gi l'observateur nee nañoo ca Nouadhibou lañu leen suul libération nañu ci juróom fukki nit ak juróom-ñett yooyee faatu ci waaxi Mauritanie yi île du Saloum ñàkk na ci lu bari ne ñu ëpp ci doomi sénégal yi newoon ca gaal ga île du Saloum la ñu dëkk ñii ca Tilane ña ca des ca Bassar ñeen fukki junni jàpp téeméeri junni la ñu fayoon ngir bëggoon a dem Espagne Gambie la ñu déparé woon libé nañu libération ñu ne ci 83 rescapés yi ñu am juróom benn yi ay sénégalais lañu sénégalais yi dund nañu coono bu rëy fan yu ñu génn ndax njàkkum ndox vox populi xëy xibaar bi ci xët mu njëkk ba di ñu xamal ne gereew bi liggéeykati SDE yi nekkee woon moo fa jaar moo leen jural coono boobee moo waral ba askan way yeewoo ca Wakaam Asalem Grand Yoff Scat Urbam Nord ak Ouest Foire Zac Mbao ba Diamniadio dund nañu lu dara jarul ci coupure ndox mi Elimane Diouf njiital intersyndical gi jabote liggéeykati SDE yi nii ci xët mu njëkk vox populi musuñoo wax ne dañuy couper ndox mi wala dañuy saboter séddalem ndox mi suur soit nañu wax jaaga ca kanam ne dugal gi ñu bëgg a dugal liggéeykati SDE yi ci capital bu Suez bi naruta yomb ci travailleur yu SDE yi Suez mi ngi ñëw te dégg nañu ko mu ne yéene mooy def ay chantier yu mag ci réew mi te bu boobaa capitalu SDE ko yokk yóbbu ko ba te liggéeykati SDE yi bu ñu fi waree nekk di lijjanti fukki milliards ak lu teg ñu war teg ci taabal ji ngir seen bokk ci capital bi du doon lu yomb las yéene nañu fi ñu nekk kay coow leeg wax jeeg tamante dëmm gi mi ngi e yi biir Guy Marius Sagna ak naataangoom yi nekk ci ñol ñol ak yoon Les Échos nee nañu moo waral professeur yi ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru yëngu nañu seen moroomu professeur bi ñu ci jàppale téye ko ci kaso bi di docteur Babacar Diop la bëgg ñu bàyyi ko toll nañu ci ñaar fukki professeur ak ñaar def nañu seen pétition di ca sàkku libération docteur Babacar Diop ndax nee nañu xamuñu lu war a tax ñu di ko mandat dépôt ba di ko yóbbu kaso Le na laati kaaf waa SAES e ne ak lu mën di am daal Babacar Diop palaasam du ca kaso ba waaye ci enfiya la beneenub syndicat bu koy jàppal tànk di SUDES ESR ne ñu li yéeme mooy nan la mën a fekkee ab enseignant chercheur di ko traité nu yées ni ñuy traité ab député bu ñu jàpp bëccëgu ndara kàmm ak i faux billets Guy Marius Sagna ak juróom-ñaari nattangom yi demoon buntu palais de république doon fa ñaxtoo ko xultu courant bu seer bi ba ñu jàppoon leen l'observateur fa ñuy denc terroriste yi ca kaso bu rëbës fa la ko denc lan la Macky Sall dencal Moustapha Cissé Lo La nañu en mere na ko lool nee na da koy fat La Tribune nañu moom responsable APR bi di Moustapha Cissé am na lu koy waajal ne bari ne kilifa yu nekk ci parti bi seen bëgg-bëgg moo di Macky Sall dàqee Cissé ci APR APR mi ngi ciy jafe-jafe ba léegi Sud Quotidien moo ko bind nee fi mu ko teg moo di ci parti bi ñu ca bari ñoo bi parti politique yu bari yu nekk ci réew mi soleil national wax nañu ne ñi ci tege ci yoon bariwul ci parti politique yi nekk ci Sénégal ñaar fukk ak lu teg rek ñoo ca tege ci yoon wi jëm ci wàllu wér-gi-yaram yëral xët njëkk journal bi ñàkkum garab gi ñuy faral di nimiku ca pharmacie nationale d'approvisionnement la gis ne bu ñu ci jëlul ay matuwaay du jur jàmm ci askan wi docteur Fallou Samb bu nañu ci yéenekaay bi pharmacie nationale d'approvisionnement ci ba mu leer li leer te leer moo di waa ji ci l'observateur léppam dikkul ubbi l'observateur benn waaye la bu tëdd di nelaw doom ju ndaw ji di jooy tànqal ko yee ko waa ji yeewu mer jàpp jabar ji dóor ko ba màtt ko ci lex bi la si ne kay nañu noonee la demee waaj ko def El Hadji Malick ñi ngi la tudd tribunal àtte na ko démb ba tëj ko fukki fani kaso ak juróom jëf rafetlu seen nag rajo Futur Média ñu yegg ci si euh, gis-gis ak RFM tey ma fàttali leen que ñuy waxtaane émigration clandestine maanaam mbëkk mi Eh, mom la ñuy waxtaanee prétexte bi nak di gaal gi suux barki dembi ci waxu Mauritanie ay sénégalais bokku nañ ca ñafaatu ñu ngi ci ligne bi ak eh, Boubacar Sey ñu ngi lay nuyu señ bi Sey ñu ngi leen di fay ñu leen di fay. yow yaay président ONG Horizon Sans Frontières benen intervenant bi eh, député Abdou Mbow honorable ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu aussi monsieur Boubacar Sey bi nga xamné moy njiitu Horizon Frontière di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu ci RFM. Horizon sans frontière yow nag yow yaay euh, président commission affaires étrangères euh, des sénégalais de l'extérieur extérieur di euh, kit wàllu intégration africaine waxtaan gi ñeel mbirum émigration clandestine Boubacar Seye boobaak léegi yaa ngi ci addu ay doomu sénégalais yu nga xamante ni daal ay doomu Sénégal yoo xamante ni lim bi ci faatu ñi ci faatu ci waax ci géej gi bari na ak li xew barki Dembo Ndiaye noo ko mhm. gisee. waaw comme ni nga ko waxee rek. boobu ba léegi ñu ngi ci addu euh, balaa may dem ma nuyu Abdou l'honorable député Abdou mbaw bi ma bokkal euh, débat bi. Mhm. voilà donc comme ni nga ko waxee euh, je crois que seen plateau bi au niveau de la RFM yàgg nañ fa taxaw. Mhm. pour poser problématique bi. malheureusement mu ngi fi ba tey moo tax notre réaction nous euh, ngi entre indignation et incompréhension par rapport à à ce phénomène qui malheureusement a endeuillé toute la jeunesse sénégalaise. Mmh. Euh, je crois que euh, à partir de ce que nous avons une prise de conscience que mu un changement de paradigme ñu de euh, pour que a cette jeunesse qui nga a ni tey Mhm. parce que tout simplement amatuñu espoir parce que bon xolé dëkk bu melni Sénégal Nous euh, nga jël cause parce que on n'a pas attaqué à la cause principale pour réduire les risques à des proportions tolérables et la cause principale c'est euh, le chômage endémique chronique et structurel des jeunes mhm. la cause principale moi, la forte paupérisation de la population la cause principale mon c'est question question de malgouvernance qui mine notre pays et qui crée des problèmes des euh, euh, des obstacles euh, d'épanouissement mhm. c'est cette cette couche vulnérable jeunesse malheureusement à Digen, à Calais ñooñu bokk dañ sax ci ñi dee. d'accord euh, d'accord dinaa dellu si ak yow euh, ci kanam euh, monsieur Sey yaa ngi doon lim cause yi alors Abdou Abdoumbaou Abdou Boubacar Seye nee na il faut que mu am changement de paradigme Macky Sall c'est vrai que sànq ci compte Twitter am mu ngi mettit lu li xew jaale njaboot yi ba noppi ne état yi war nañ def seen kéem kantan ba loolu dakk changement de paradigme moom bu ko kii waxee ci lan lay xaw a renvoyer par exemple. waa jërëjëf maa ngi lay nuyu comme ni ma ko wax sànq di nuyu Boubacar Seye di wax mm-hmm. rek ne d'abord dañuy regretter li nga xam ne moo am di présenter suñuy condoléances famille yi nga xam ne mm-hmm. am nañ ñuy ñàkk waaye nag aussi eh, di wax ne eh, phénomène immigration clandestine ci gaalu looce yi comme ni ñu koy gisee di ko waxe mm-hmm. eh, ak ci àdduna bi phénomène social la bu ñu xoolee dangay gis ne même gaal gi ñuy wax ne tey dafa suux li fi nekkoon ci ay ndaw euh, war na léegi war na jege ñaari téeméer. Mhm. ci xayma yi ñu jotagul. bien mhm. que jotaguñu chiffre officiel yi téeméer ak juróom fukk ak lu teg. waaw xam nga loolu ba pare ñu wax ci euh, ne am na treize ba quinze sénégalais xam nga mhm. loolu nekk na loo xamante ne nii euh, dëgg la dañuy benn sénégalais boo ko ñàkkee rek dafa diis waxuma laak fukk ak fukk ak lu topp waaye bu ñu xoolee li am. il faut que aussi comme ni ko Boubacar waxee xam nga euh, am na loo xam ne dina ci d'accord ak moom am na foo xam ne duma ci d'accord ak moom parce que xam nga bu benn phénomène amee boo xam ne phénomène mondial la nekk phénomène social mhm. dañuy xool li nga xamante ni ñun suñum réew mhm. ña ngi koy def pour que loolu mën a wàññeeku parce que boo xoolee ci d'accord bi fu ngeen d'accord fu ngeen fi ma euh, fi ma d'accord ak yow mooy mooy war nañu euh, sensibiliser davantage ah, les populations mais honorable sensibilisation sensibilisation bi yàgg na waa damay wax xam nga damay wax rek loo xam ne lu lu lu tegu la lu nit mënta dindi xam nga tey. Hmm. boo xoolee mën naa ne fii juróom juróom ba juróom ñeenti at ñetti at ci ginnaaw soo dee xool embarcation yi xam nga am na jamono. Hmm. da nga daan dégg gaal yu bari daan jóge Sénégal mais tey jii gaal yu bari yi nga gis ñuy wax ay sénégalais ñu leen ci ñu ci bëri jógewuñ Sénégal te loolu nekkul loo xamante ni rek dafa dafa ñëw nii hmm. état du Sénégal dafa jël ay responsabilités transversalité hmm. gestion mbir mu ministère des forces armées Intérieures, économie maritime affaires étrangères hmm. ñu d'abord sécuriser nos frontières muy parce que ga ga Sénégalais doomu Sénégalais hmm. ñi ngi dem bitim réew di dem fenen di dugg yi nga xam président de la république à son gouvernement nous avons koy pour d'abord régler le problème de de de l'emploi des jeunes te vous boo le président de la république gouvernance am bi mu nous avons mhm. mi ngi def pour que nous ñi mën un am liggéey ñi nga xamné mhm. amuñu liggéey ñu mëna am ay financement ñi nga xamné un amuñu métier amuñu formation ñu jéem réorienter la formation professionnel pour régler mhm. li nga xamné moy l'employabilité des jeunes maintenant mhm. bu ñu bëggee rek jël lépp da di koy jël da né mal gouvernance ak yeneen mbir mi dafay xaw a soppeeku fenen parce que jamono yu mel ni bu amee mhm. li gëna am solo moy d'abord est-ce que état bi la mo wara def def nako moy assistance bi nga xamné mom la war ay compatriotes loolu président de la république jox na ay instruction te ki nga xamné moy Boubacar Seye du bayima ma fenn war na mën a xam mi yëngu ci mbir mi les autorités sénégalaises prennent nañ toutes les dispositions hmm. pour assister sénégalais yi nga xamante tay tey jii nekk nañ ci jamono bi noo nekk bitim réew euh, monsieur monsieur Seylo, ci tontu waaw dama je vais rassurer mën nga seede ne mën nga seede limu wax amna non duma ma c'est-à-dire que euh, xam nga dañuy waxtaan pour des solutions mm-hmm. euh, voilà man nous sommes dans les mêmes perspectives parce que tay c'est le Sénégal qui est endeuillé mo mm-hmm. wax ni la migration dafa nek euh, un phénomène de société. a euh, fait un survol des théories migratoires toute théorie bu une part de responsabilité à une frange la théorie néoclassique l'État la nouvelle économie des migrations internationales les familles qui sont responsables la causalité cumulative nous immigré yi nga yeneen ak yeneen yoo xam dama wax ni kon les responsabilités sont collectives et partagées mais nag dafa am rôle bu rëy boo ça incombe à l'État du Sénégal hmm. tey la jeunesse africaine euh, dama wax ni cette richesse malheureusement devenue un fardeau pour les États tey ñu ngi dee en Méditerranée parce que dañu foog ni solution bi faneen la moo ni il faut une relecture des perspectives il faut que ñu changer tëralin dans une démarche participative xool lan mooy saafara bi li tax sans que tu français bi dafa am lu honorable mais ma ci wat pour mu gën ko comprendre xamna suma ko expliquer dina comprendre dama ni. Mhm. Euh, le Sénégal dans la gestion de ce dossier là dafa am des failles dans le conjoncturel industriel. nous on parle de Sénégal de l'extérieur D'abord, le terme est caduc. Mhm. xam nga il faudrait que le chef de l'État mu une agence autonome. Mhm. chargée des migrations internationales ou bien un ministère plein le ministère mooy toutes ces problématiques dans sa diversité sa complexité et sa transité rawatina hmm. le Sénégal avec la découverte de ces hydrocarbures entre dans une nouvelle phase géopolitique. Hmm. Quarante 42 des des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique et le Sénégal va attirer avec un risque. Pour de dumping migratoire moo il faut légiférer sénégalais de l'extérieur amatul sens. d'accord mais mais mais mais mais, mais y'en y'en, monsieur Sey, ak kuréel gi ngeen ak kuréel gi ngeen jot euh, bi yore. bu mooy interpeller également les pouvoirs publics lan ngeen di def concrètement sur le terrain pour ne serait-ce que. Euh, mais mais mais mais la parce que man ñun duñu état du Sénégal ñun ay immigrés, lañu conscient des enjeux ñu ñëw parce que gàcce le pour ñun xale yi di dee ci géej gi nous avons pris nos responsabilités dans la sensibilisation. Hum. Parce que l'oracle, nous, nous ne pouvons pas nous substituer à l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, nous sommes appelés Horizon sans frontières. Au contraire, non, nous sommes au Sénégal. Il faut que les choses soient très claires. Hum. Donc, nous devons nous dara nous nous conscientiser maintenant nous ce dossier là nécessite un traitement d'urgence mhm. de nouvelles stratégies d'orientation L'État est il faut revoir les axes et orientations stratégiques de l'aide au développement qui n'a jamais servi aux gens droit mhm. mais il faut les auditer parce que le phénomène n'a jamais baissé d'intensité programme yi bëri mais kan le programme yooyu pour lii parce que je rappelle que mhm. la cause principale du le chômage endémique est chronique la euh, cause principale mooy les inégalités il faut lutter contre cela. Mhm. beneen bi voilà je voulais dire que gis nga euh, pour wax ko ni rek ñun ñëpp la euh, tay la notion de tech dama wara am. am euh, tout le monde il bëgg bouger tech il faut que ñu revois ñu nos pesanteurs socio-économiques. Mhm. lépp am am la la relation linéaire qu'il y a entre le travail ak am am a été défroqué. Il faut qu'on mette les gens dans une dynamique de travail. Nous, comme suñu bopp xam l'avenir est ici. Hmm. il faut cette révolution socio-culturelle épistémologique pour ñu xam suñu bopp xam ñoo ñan mën a gëm suñu bopp mën a toog mën a toog fii si Sénégal Boubacar liggéey suñu ñu ngi lay gërëm ñu ak euh, Abdou Mbow honorable dégg nga la mu wax nee na euh, dafa am ay failles conjoncturelles si seen politique wax na également euh, ci actes yi ngeen di yi ngeen posé boobaak léegi ana kan la profito dem na sax audit effectivement est-ce que waru leen gëstu xool la ngeen taxawaloon

amul seq ak moom pour war ko jàppale ci dara moom moo am nan lay liggéeyee di ko liggéeyee li mu wax aussi ne état du Sénégal def non def na ma noonu noonu booy noonoo da ngay noonoo koo xam ne yéen a bokk lu ngeen di def wala yéen a nekk ay non non du benn moom dafa am organisation di liggéey ñun ñu nekk ci état bi di liggéey ñun ñenn ñi nekk ci assemblée nationale di poser les débats di xool parce que état du Sénégal boo xoolee tey li mu waroon def ci parce que li mu war a def wax naa la sànq yi nga xamante ni moom lay def pour que loolu mën a deñ li ñu njëkk def pour sécuriser frontières yi ba nga xam ne gaal looco jógeetul pratiquement Sénégal loolu mu doon ay acte yu ñu posé sensibilisation bi gis nga ne état du Sénégal mi ngi ci suba ak ngoon guddi ak bëccëg beneen mbir bi moom mooy lii bi mu xewee état du Sénégal comme ni ma la ko waxee sànq jël na ay dispositions parce que le président de la République dafa instruire le ministre des affaires étrangères mu instruire les autorités consulaires jugé ci secrétaire d'État au Sénégal de lecteur maintenant il faut pas ñu jaxasse mbir yi xam nga le ministère des affaires étrangères mu am secrétaire d'État au Sénégal de lecteur Il dafa am lu spécifique lo mhm. xamante ni liggéey parce que président de la République mom moy définir la politique de la nation mom mo xam système bi nga xamante avec la transversalité des ministères et la transversalité de cette de la gestion de ce dossier là mhm. nan lay fexé pour que ministère yi nga xamante ni ku ci nekk am nga pàcc boo war a liggéey nga am noo xamante ni di nga ko defee loolu gestion état la vision président de la république te président de la république comme ni ma la ko waxee daf ci posé ay actes yoo xam ne dama la ko limal léegi mu nekk lu leer maintenant mhm. li nga xamante ni nag moom la ñu war a bokk ñun ñëpp mooy la sensibilisation te ONG yi bañ a xalaat ne état du Sénégal daf leen a def noonu déedéet parce que mom muy maître Sèye nek horizon sans frontière waxna ko léegi. Mhm. amna na xalaat yoo xamante ni joxe na été nit ñi ko intégré parce que ku ci nek amna lo xamanteni non nga wara ñun au niveau de l'Assemblée nationale. Mhm. bi mbir mi mhm. en tant que président de la commission des affaires étrangères j'ai saisi le gouvernement à travers le ministère des affaires étrangères ñu jox ñu les informations xamal ñu né li nga xamante ni moom mooy assistance bi war ci compatriotes yi nga xamante ni am nañ gàllankoor foofu euh, ñenn ñi faatu nañ ñi ngi koy def parce que instruire nañ suñu autorité conseillère ñu nekk sur place. pour que loolu mu doon loo xamante maintenant nag. Mhm. le problème de la migration comme ni mu ko waxee c'est un problème de xam nga problème société c'est pas spécifique au Sénégal. Mhm. mais Sénégal la mu war def pour que ay doomam toog ci réew pour que ay doomam nekk ci jàmm pour que ay doomam bañ a demati. loolu ñi ngi koy def suba ak ngoon te ak yi ñu ciy posé dafa doon ay actes yoo xamante ne nii. Mhm. lu leer la lu leer lu ñu mën a teg teg loxo lu mhm. palpable la loo xamante nii mën nañu wax ne voilà les résultats parce que wax naa la ko sànq yow ci sa bopp constaté ko ko depuis kañ nga gëj a dégg ñu ne gaal gii moo jógee Sénégal daanu na ci géej gi gëj nga ko dégg. Mhm. loolu liggéey na mais bu gaal jógeetul Sénégal te sénégalais yi di dem ba léegi tamit. problème mais mais mais mais xam nga ñun nan la ñu war a continuer sensibilisation xam nga ki nga aussi dafa dem Gambie. Hmm. fa dem kenn ki Mauritanie fa dem waxuñu responsabilité état amu parce que benn sénégalais ak foo mën a ci bi état du Sénégal mooy le premier responsable. mais loolu dañu continuer maintenant. Hmm. la sensibilisation continuer régler employabilité des jeunes continuer régler li nga xamantene moy la formation pour que Génie yi mën a liggéey ci réew mi koom-koom bi gën que mën mhm. te que la nga xamantene ni moy migration clandestine ñu mën ko bàyyi d'accord jërëjëf jërëjëf Abdou Mbow gërëm ko mom moy président commission des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine gërëmit Boubacar sey président ONG Horizon Sans Frontières mu doonoon gis-gis ñeenti waxto genn wàll ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg nun xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey